benn yoon lañ mos am ci dëgg ci mag sàll mooy bi ñu nee Macky Sall Abdou mbay du nekk premier ministre Sénégal ndax jubul Abdoul mbay moomu lañ dàq tey mu dellu ca ñu ni woon jubul ànd ak ñoom di di di xaxaar ak a wax. keneen ki mooy Ousmane Sonko koo xam ni yow mën ngaa taal am réew yow parce que li tax nga mën a taal réew mooy Ousmane amul benn sëriñ ci Sénégal boo xamante ne nii bu naroon a taal réew mi dañ naan ah bu ñu woowee sëriñ bu sëriñ sàngam bu ko woowee aaye ko dina bàyyi amul kenn kilifa diine goo xamante ni nii. tey jii gis ngeen ko Alioune Sall dem ci moom xabru yi ñuy ñu ñu ñuy ñu denc suñ kilifa yi gëmul loolu nii ñuy siyaaree xabru gëmul loolu kenn xamul ab terroriste la kenn xamul lu mu doon kanamu jiyaat yi sax la yor mu taxaw ci réew mi nag bëgg di taas di ci réew mi te loolu duñ ko nangu parce que Ousmane Sonko maa ko déglu ci benn vidéo mu ni xale yi buñ seetaan matchu équipe nationale bi nañ ñëw ci affaire pétrole bi nañ wàcc ci mbedd mi nañ taal réew mi koo xam ne yow équipe nationale ñuru réew mi ñoru la boo xoolee élection yi biñ ci demee ba génn na nga wër pays naar yi yi am problème yépp nga xamante nii jihadistes yi jege nañ leen wala fa ay rébellion jege nañ leen ñooñu ñëpp pays yooyu ak Ousmane Sonko lañ wooteel kenn mais Sénégal dañoo war a taxaw ci affaire Ousmane Sonko duñu seetaan réew moo xamante ni nii ca ca Ngalanu ca Belees ba ci Senghor ba ci Abdou juuf ba ci Ablaye Wade ak gone jóge ca àll ba kenn xamul kum doon bëgg a taal mi il faut ñu arrêté loolu koo xam ni mënoo nekk ab maire ci commune bi nga demee élection bu doon quatrième nga jël bu doon ab course ab course sax kenn du la fay moom bu doon fas wi daw sax kenn du ko fay. donc nga bëgg a taxaw comme benn ñebe ci cin la réew mi taxaw lu la neex ngay wax dama contre comme euh, Aline li mu génne kaamil di waat lu muy waat Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ak mi tax mu génne kaamil di waat dañoo xam lan mooy kaamil koo xam ne li ngay waat xamu ko boo ko du ko gëm. ndax ki ki nga xamante ni nii léppam ay fen la ak i sos ak i tappale boo ko tegalee arxuraan di ko waatal mooy yàq say wax du ma waat du ma parce que ñoom liñ bëgg mënta nekk président Macky Sall ñoom dem nañ fi élection yu député ñu ni dañuy fexe gagné ko mën a diriger assemblée nationale Macky Sall dootu gouverner ñu dem def soit ay coalition Ablaye Wade ànd ak coalition doomam nekk ci kaso bi xalifa ñu tëj ko ci kaso bi Ablaye Wade wër Sénégal gépp ànd a coalition boobu 19 député la am Khalifa Jamil Ousmane euh, Idrissa Seck ñoom ñëpp àndoon dem wuti 7 député la ñam ñu ñëwaat élection coalition Idrissa Seck gënoon a mag ci coalition bu mas am ci élection Sénégal waa da leen a xëlam yenu ba ci suuf la leen def xëlam leen donc loolu mënuñ koo digérer maa ngi leen di féliciter nag ci lenn muy pire ak ak ak ak Idrissa Seck ak Madické Niang parce que au moins ñoom xam nañ lan mooy état. xam nañ lan mooy réew lii ñuy wax waxuñ ci mais Ousmane moom bu sañoon réew mi tàkk suba parce que loolu la wax ak ñeneen ñoo xam ni ñu ngi ci pays bi cim réew mi nga xam ni fu tàkk ñoo ko taal libi ci jàmm lañ nekkoon ñan ñoo taal libi rey Xaddaafi li fi boo masaa ah, takk jabar ñu jox la kër jëndal la oto di la jox salaire ñu fexe ba dugal fa benn rébellion rey Xaddaafi li bee nga ne yàqu pétrole bi gën feeñ ci Sénégal gas bi gën feeñ ci Sénégal benn gone goo tëb taxaw impôt domaine da nga sax da ngaa ay këyit di ko publier di ko wane kooku bu ñu la joxee am réew do ko taal ban responsabilité Ousmane Sonko wala yor sol feltam boobu rek kenn xamul lu muy nuru di wër réew mi di wax il faut arrêter